premier combat am ci compétition bi mu ngi noonu Boy Faye moo ngem boo ngem ñuul li ñett ñuy yéeg ci tribune bi am nañ maana macha allah munta ah ndeysaan ah waaw say mbokk lañ de yére yére yére tiktok bi ndeysaan mu ngi noonu Famoura ndeysaan Boy Faye moom it premier combat ci compétition baa ngi noonu ngembo ngemb lu ñuul li ndeysaan mu ngi noonu ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu Boy Faye daan na Boy